Euh, man la madame Diouf euh, Awa fay directrice sous centre de formation professionnelle bu euh tay nak dañu amone gan ñi nga xam ñu ngi jóge woon Dakar jógee service national d'orientation professionnelle ñu koy wax SNOP ñoo fi tay euh ngir euh, jappalé suñu xalé yi gën leen renforcer ci module ñuy tuddee entrepreneuriat lool nak ñukoy koy rafetlu di rafetlu di di ci gëreum la directrice bi nga vraiment du taay di son ci di accompagner xalé yi ci lu réussite mom dañ koy nuyu euh, di ba service ba yépp direction Nous, ñi vraiment parce que si né entrepreneuriat rek ak formation professionnelle parce que mënul ñak formé même ci biir formation bi sax dañu wara xam parce que da leen di amal njëriñ ëllëg bu ñu paree wala avant ñuy pare si na mën a tax ñu bind li ñuy tuddee un plan d'affaires mooy euh, xaatim fenn foo xam ne dinañ fa mën a def seen projet bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def seen projet professionnel. loolu nag lii tey jii jéego yi ñi di def day gën a conso consolider li nga xam ne mooy entrepreneuriat bi nga xam ne ñun ñu ngi koy def nag ci suñuy ci suñuy ci suñu njàngale ñu ngi ko ciy def suñu cours yi ñu ngi ko ciy def mais lii da koy gën a dëgëral. moo tax tamit dañ koy rafetlu di leen sant di leen gërëm ci seen présence fii euh, di wax ne xale yi aussi il faut ñu jàpp ci seen fukki loxoog juróom parce que su nit jógee fenn ñëw dina jàppale il faut nga xam njëriñ bi muy am ci ëllëg ci yow mooy lan mooy nga fulaal ko fay daal ko ba ëllëg soo génnee béréb boo mën di nekk soit nga taxawal sa yëfi bopp wala nga nekk foo xam ne dañ la employé di nga mën a doxal normalement ci lii sa nga taxawal sa yëfi bopp moo ko tax a gën a jóg nga xam lii dugg ak lii génn ak li nga xam ne mooy mooy mooy moo lay mën a avancé loo ak fi nga am ay problème mu gestion loolu yëpp la ñu tënk mu ñu tuddee ko entrepreneuriat donc duñu ñu mën du rafetlu ko di rafetlu vraiment idée bi nga xam ne am nañ ko ba def mission yi ci centre de formation yi euh, surtout nag ñooro fii moom ñun dañ koy gën a rafetlu parce que dañu am dañu tànn ci li ñuy tuddee internalisation de l' entrepreneuriat dans les curricula de formation ñun fi mu nekk dañu jël benn filière boo xam ne dañu ko booleel ñuy def entrepreneuriat dès la première année ci fekkoon na sañu ñu am mébét booba di ko def ci loolu tamit day gën a renforcer rek day gën a consolider vraiment sant nañ leen bu baax gërëm leen ci seen présence ak li nga xam moom la ñuy defal xale yi nga xam ne ndam rek lañ ciy mën a jël ci réussite aussi rek lañ ciy mën a am ak vraiment lu baax macha allah. wolof la ñuy wax asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ababacar Traoré nekk psychologue conseiller au niveau du service national d' orientation professionnelle. di kuréel gu nekk ci ministère de la formation professionnelle de l' apprentissage et de l' insertion tey nag dañu ñëwoon fii ci Nioro ngir euh, gunge xale yi ci li ñuy wax seen insertion ci wàllu mbirum xëy ndax euh, ndaw yi fii nekk buñ fii xëy si du rek pour jàng jële fi xam-xam xam-xam boobu dañ ko war a delloo seen bopp jariñ si seen réew donc ci waa fànn moom ñëwoon nañ seen école ñu ngi def d' abord internat li ñuy wax internaliser nañu module en entrepreneuriat ñu ngi leen di tàggat ci entrepreneuriat mais ñun dañuy ñëw rek dooleel leen def nag tooga nag ak euh, kuréel gi ñuy wax CAI cellule d' appui à l' insertion tey waxtaan wi dafa gënoon jëm donc ñu ko waxee ci mbiru entrepreneuriat mën a demal sa bopp ci loolu waxtaanee nañu lan mooy ñi nga xam ni jafe-jafe yi nga xam ni entreprise yu soog a jóg moom la ñuy jànkonteel nan lañ ko mën a xeexe euh, fii léegi suba incha allah daañ leen gën a tàggat ci ndax entreprise saytu waxtu wi bañ ñàkk temps ndax temps alal la nan la ñu mën a gérer seen temps loolu daañ ci gën a waxtaan mais tey aussi li am solo li ñu def mooy dañ leen wan ni fii ñu dëkk nii muy Nioro euh, opportunité yi bare na nit mën na fi tekki tey bu ñu gisee ay jafe-jafe di am ay nit di jël ay gaal ak yu mel noonu dafa fekk ni gëmuñu ni fa ñu dëkk potentialité am na fa mën nañ fa tekkee donc euh, gëm loo leen seen bopp suñu liggéey aussi ñun def ci bokk li ñuy wax wàllu développement personnel nit ki am confiance ci boppam am motivation mën a am projet xam ni man ëllëg lii ak lii laa bëgg a def ci wàllu yooyu daal lañ leen gën a sayt saytu lii def nañ ko Fatick tey ñu ngi Nioro fii lay gannaaw suba inshallah war nañ ko def ak Diourbel donc ministère bi dal mi ngi bay waram ci nu ko mëne ñun nak mission bi dañ koy def suñu duggale suñu kilifa gu ñuy wax euh, madame mam Diarra Diop moom moo service national d'orientation professionnelle. waaw école bi dafay tàggat ngir gën joxe xey mais lu ñu pour def formation en entrepreneuriat ñun dañuy jël en compte li ñuy wax les demandes du marché. bu ñu génnee ñii leen di mën a employé si lañ leen soxla ak ñoom aussi ci milieu bi seen environnement yan opportunité lañ fa am ñoom ñu fexe ñu am par entrepreneur au-delà des qualité ñun lañ leen di fii li gën a am solo ci école yi compétence technique yi dañ koy am mën liggéey bi et cetera mais li leen di wuutale pour ñu mën a réussir mooy li ñuy wax euh, compétence soft xale bi nan la war a mel-mel yan qualité la am euh, nit ki nan la bindoo loolu mooy def différence parce bu ngeen jànganoo généralement da am na fu ngeen tolloowee mais li leen di wutale mais nit ki nan la mel si loolu daal ku la gis bëgg la naw la nga respecté sa ak liggéey wàll yu mel noonu daal mooy def si yooyu la ñu gën a sukkandiku pour tëgg modi ju mel ni waaw ñoom ci li ñu war a am wax naa ko léegi mooy confiance en soi ñoom nañu gëm seen bopp ñoom aussi seen ay qualité nañ ko mettre en avant mais aussi fu ñu xoolee ñi nga xam ne fam am nañ fa ay limite par nit matul ñu améliorer te aussi am na tey lu gën lu am solo lu génn mooy entrepreneur dafa mën war nekk résilient du tàmbali naa rek dafa war a dox damay def ay entre damay def ay initiative xëy na nu mu war a mel du ko mel ma jàngee si mais ñun dañ naan échec amul initiative non réussie rek moo am la doxul ma jàng ci pour ëllëgee mu bañ ma dalaat du ñàkk balaa yàgg naa mën a taxawal lu am solo

pour ñu mën en am financement mais souvent xale li ñu di def mooy duñ dem ci structure yooyu mais loolu déjà au niveau de l'école ñu ngi leen ciy jàppale ministère bi aussi dina gën bay waaram ci loolu daañ ko bàyyi dañ bàyyi nañ ko xel bu baax. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Daouda Diouf responsable de la cellule d'appui à l'insertion bu CFP Nioro bi euh, léegi boo xoolee ci organigramme ministère bi euh, pour prendre maanaam xëyu ndaw ñi euh, école bu ne dafa installé benn cellule boo xamante ne maanaam moom mooy accompagner ndaw ñu fay jàngee di leen taxaw maanaam ci bu nu waree dem stage ak même bu nu defee formation ba noppi ñu jéem leen a suivre di leen topp xam ñi nga xamante ne am nañu fu nu am nañu xëy ak ñi nga xamante ne amagunam xëy ba pare ñu jéem a euh, orienté waat waaw loolu daal la nekk di kii di di di di def ci école bi. ci ginnaaw loolu aussi ñu ngi remercier maanaam sunu ministère tutelle. di remercier aussi agents yi nga xamante ni ñoo jóge service national d'orientation waa SINOP ñu ngi leen di remercier bu baax ci exposé bi nu exposé fii eh, ànd koog sunu apprenant yi sunu ndaw ñi ci lu jëm ci wàllu entrepreneuriat vraiment ci qualité qualité échange bi eh, maanaam eh, qualité débat bi daal débat kii bi débat bi leer na trop da koy xamee ci ci question yi nga xamante ne xëj na ndaw ñi ñu ngi koy posé ak euh, ñoom échange yu ñuy def daal ñu leen ci remercier bu baax a baax waaw euh, ginnaaw loolu itam aussi xam nañ ne maanaam nit ki bu defee formation ba noppi ñaari possibilités yi mooy am mooy soit maanaam mu dem fen ñu di ko employé ñu di ko euh, emploi salarié wala mu jéem a ubbi entreprise boppam li ñuy naan auto emploi ñaari possibilités yooyu moo fi am waaye bu fekkente ne xool nañu dafa remarque Sénégal ñi ci bëri bu leen formé dañuy jàpp ne maanaam ñoom kat euh, danoo war a dem maanaam déposer fen ngir ñu jël leen ñu koy wax emploi salarié. alors que beneen possibilité itam am na muy jéem a fexe maanaam taxawal sa entreprise bopp commencé ci lu ndaw lu ndaw di yéeg ba mën a employé ñeneen sax ñoo xamante nii euh, euh, bokkut ak ba ngay commencé daal. waa tout d'abord aussi boobu itam damay. félicité toujours Mme Sinop ci ci ci programme bi parce que dañuy ñëw reconforté di reconforter manam euh, programme ministère bi moy internalisation du modèle entrepreneuriat moy dugal euh, modèle entrepreneuriat bi ci programme de formation yi. xejna jafé jafé yi nga xamante rek mom la di rencontrer moy soit manque d'information de ci am ak euh, manque d'estime quoi manque de confiance en soi yoy di ci am waaw. xale yi am na ñoo xamante ne nan leen li ñu war xam yépp xam nañ ko mais parfois motivation bi ci am da ci motivation moy dess des ba pare itam information yi ci bo waree. Euh, bo bindé sa projet wala bo amé sa projet fan nga wara mëna dem peut-être pour bénéficier ci ben financement yoy def ci am. d'habitude sax euh, fi euh, xale yu ci bëri dina leen accompagner ñu bind seen projet bu ñuy gën dañuy gën ak seen projet. am dañuy am seen business plan dañ koy am léegi li ci des mooy xaj na financement bi te financement bi itam am na ñu ngi ciy def ay démarches di leen booleek ay structures yu demee ni ay ay DER pour ñu financer. waa waa ñooñu de xam naa damay xej na dañoo amul information bi rek waaye comme ni ma ko waxee woon ci euh, sama njëlbeen wax mooy. centre de formation du mën a rek mais fépp fo xamantene centre de formation mu ngi fa rek bayul ay ndawam ñi muy former amna ben cellule bo xamantene mo fa nek ngir manam accompagner gunge ci ñu amam xey am stage ak yëpp amam xey te yooyu itam am nañ ci ay alhamdulilah am nañ ci ay am nañ ci taux de réussite bu satisfaisant dal am nañ ci ay exemple am nañ ci alhamdulilah dal vraiment am nañ ci ay résultats yo xamante mom Euh, macha allah xëj na ñi koy wax dañoo xamul rek mais ku fi ñëw fii dinañ la jox information yi nga xamante ne moom la ñu am yoo nii ñoom fii la ñu fii la jàngee defi fi formation génn nekk ci ay bérébu liggéeykaay tey ñu ngi nii nag ñi nekk ay borom ay borom kër soit jigéen lañu wala góor lañu ñoo xamante ne mën nañ cee jox ay exemple yu bëree bëri ñoo ne fii lanu ñu génne tey jii samp nañu kër di ci suturlu di eh, eh, yor ci seen famille yor di ci dimbali seen i waajur ak ñi ne. salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu bu baax man la Ndeye Coura Diop maa ngi nekk fii ci CFP Nioro du Rip ñu fi tàggatee ay ndaw yu bari bari ñu ñuy tàggat euh, ci luñ naan euh, développement locale olof naan ko suqali sa gox fii nag ñu ngi fiy tàggat ay ay ñu ñu ngi tàggat ci ay filières yu bari bu mel ni restauration am na fi élevage am na fi couture am na fi tamit euh, sérigraphie ñun nag euh, rëccuwuñ lu ñu ñëwee centre bi fii ndaxte jàng nañ fi lu bari jàng nañ fi lu bari ñu ngi remercier bu baax a baax euh, formateurs yi particulièrement monsieur Diouf ñu ngi remercier en même temps directrice mi nga xam ne moom moo moom moo initié lii nii ñu ngi rafetlu bu baax tamit euh, liñ ñu formation biñ ñu fiy defal parce que ñu ngi defal formation ci wàll entrepreneuriat te journée bi lool ci loolu ci loolu la doon ci loolu moo waraloon seen ñëw bi tey. waaw loolu moom dinaa ci sawar bu baax a baax entrepreneuriat lu am solo la parce développement. dëkk mënul am sans entrepreneuriat parce que entrepreneuriat mooy nga commencé lu ndaw lu ndaw muy jur di jur di jur ba toll ci stade bu sori mais nag loolu dafa am lu muy laaj lu mel ni bañ lu mel di denc lu mel am objectif bu clair waaw loolu moom loolu dañ ko war a waaw gis naa ci sama bopp bu baax a baax a baax dina ma permettre ma xam yoon bu may war a mun a jaar pour mën a réaliser sama projet yi à à venir. financement bi du yomb mais pour mu yomb dinañ war nañ am ay information yoo xam ne moom la ñuy am pour xam fu ñuy jaar pour am financement yooyu war nañu dimbale ci information yoo xam ne foofu la ñuy jaar pour mën a am financement yi mais formation bi moom mu fi mais lu ñuy ñaan moom mooy ñun ñu am forma pour ñu am fond lool nak il faut ñu am information bo xamne mo ñi permettre ñu mëna am fond pour ñu mëna réaliser suñu projet. wa jafe-jafe ji ñun bu ñuy xol sur le plan social jafe-jafe yi mom ñun dañ koy délo ci suñu bop si ñun jigéen ñi parce que mënuma comprendre mënuma concevoir ngay dajale ay année nga ñëw ben jour nga yak ko ci ben xew lool dañ koy régler une bonne fois pour tout bala ñuy wax entrepreneuriat parce que nit ki bu fekkee entrepreneur entrepreneur nga yow war nga am nu ngay doxé war nga xam ne lii man warul ma nga xam ne man entrepreneur laa lii nii laay. waaw dañ leen di remercier bu baax a baax si seen disponibilité ñëw nañ fi vraiment jàngal ñu lu bari ak seen euh, humilité bu ñëwee jàngal nañ ñu lu bari xamal nañ ñu lu bari te tamit euh, yokku nañ ñu yokku nañ ñu courage tamit pour ñu mën a jëm ci